salli wa sallim sarmadan alal amiin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 ñu ngi ko tuddee muqaddima ba tey wala introduction bu ndaw bu ñuy dugal rekk ci salaatu ala nabi yi ni ñu koy defe ak ni ñu koy doxale ak yenn lim yi kon muy li ñuy jiital rekk bala ñu caa tàbbi salaatu ala nabi sallallahu taala alayhi wa yi am bari na lool ni leen ko waxe woon ne mat na junni ba fukki junni ak ñaar dañoo fees dell ak njariñ te am doole lool yi ñuy waaj a wax yenn la ci yi ñu xam am na ci yoo xam ne yu siiw lañ am na ci yu siiwut waaye salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam bu ci waay jàpp di ci sàkku ngërëmal yàlla te woy ca dàkk te sellal ko dina ko ca am ci ndimbalal yàlla ak yërmandeem doonte du ci yii may waaj a wax gum mën a doon rek na doon salaatu ala nabi sallallahu alayhi rek lu mu gàtt gàtt baax na teewul nag nee ñu salaatu yi dañoo ëppante doole salaatu ala nabi sallallahu taala alayhi wa sallam def na ci faj ay aajo yi ñuy faral di dikkal ci àdduna niñ koy faje ci turu yàlla yi ak xawaatim yi ak yeneen sekkare al imaam ad-Dinuuri nee na ida btuliya al muuminu bil masaa'ibi wal amraadi wal gumuumi wal kuruubi aw yatlubu al manaasiba wal jaaha أو ابتلي بالفقر والذلة وغيرها أو بعزل عن منصب وهو يريد أن يناله أو بنزول الآفات السماوية وظهور البلايا الأرضية وهو يريد دفعها فليكثر من الصلاة والسلام على سيد الأنام في الليالي والأيام فإنه ببركتها ينال مرامه والمقامه moom al imaam diinoori nee na bu fekkee jullit bi sunu borom da ko teg aw tiis wala tawat wala njàqare wala ak ñàkk wala toroxte wala daraja jum amoon mu xañ ko ko bu bëgg koo jotaat wala mu bëgg daraja yu kawe fii ci àddina wala mu bëgg a samp wala yàlla subhaanahu am natt bu ci kaw suuf lu mel ni balaa nga bëgg ko jeñ na ngay julli ci ngën gi mindeef sallallahu taala alayhi wa lu bari guddi ak bëccëg sayiduna muhammad sallallahu taala alayhi wa na man salla alayya kulla yawmin mi'ata marra وفي رواية من صلى علي في اليوم مئة مرة قضى الله له مئة حاجة سبعين, سبعين منها في الآخرة والثلاثين في الدنيا ku julli ci man bés bu set téeméeri yoon wala mu ne ku julli ci man téeméeri yoon ci bés bi sunu boroom dina ko fajal téeméeri aajo mu ne juróom-ñaar fukk yi ca àllaaxira lay doon fanweer yi fii ci àdduna lay doon kon yitte ju ñu mën a am mënees na koo saafara salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam salaatu ala nabi yépp am solo sallallahu alayhi wa sallam nee na man akthara salaata alayya aghnaahu allahu taala ghinan laa faqra baadahu mu ne kuy baril salaatu ala nabi sallallahu taala alayhi wa sallam te saxal ko sunu borom dina ko jox am koom moo xam ne dootul soxlaal kenn lan te dootu ñàkk ba faw waxaan na tamit ne man salla alayya kulla yawmin xamsa miati marra lam yaftaqir abadan ku ci man bés bu set yoon suñ borom subhaanahu wa taala dina ko woobal ba dootul ñàkk dootul soxlaal kenn lenn salaatu ala nabi sallallahu amul lu faj muy ci àdduna ak ci àllaaxira gee jëm